aca loolu derbi la loolu derbi la derbi Niakhar diggante nag jegaanu Saas ak Modou Sarr Ngayokhem Modou Sarr moo leen wan gannaaw ngeen jàkkaarloog Diegane Saas loolu derbi la ñu déglu combat bi ba xam bëre fan lay mujjee diggante Diegane ak Modou Sarr aca i leya nuun ee derby diggante Diegane Saas Modou saaganga Yokheem aca nu ndeglu combat bi diggante Diegane ak Modou Saas waaye moo Saas mu ngi koy jéem a attaqué waaye Diegane a ngay bañ ñu déglu ba xam bëre fan lay mujje ñu leen di souhaiter que le meilleur gagne jum daanu ndeysaan arbitre ate na combat ba acaf ku nekk am na avertissement ndeysaan ee eh, ee eh, ee eh, caaka faye <laughs> caaka ngay daanu foofu <laughs> ngeen comprendre ko noonu ndeysaan mbër yi ñoo du daanu ci kaw cumtukaayu caaka fay fekk leen boobu jegaan am na avertissement muy ñaari avertissement Modou Sarr am benn avertissement Elimane Diouf Malick Diouf Pape Gueye Gabriel Sall Seck Lamine

parce que bu ñu ko defee avec maa leen benn benn benn day faatu bu ko accueillir depuis Adja merci. ñu bëri jaar nañ lay lay la la Modou Sarr daan na ko Modou Sarr daan na jegaan